Ousmane Sonko il y a des étudiants à l'université tey jii man comprendre naa ni këram lañu ñu jógee dem wut samay CD wut ay ambulants dem wër benn CD boo xam ni woyoon naa ko président ànd ceeg président ñu ne dañ koy lakk boo xoolee juróom lañ xaw juróom benn yoo xam ni kër waay. Maam Góor démb dañu gis université de Dakar étudiants yi di grève mais grève bi nag dafa li gën a attirer attention mooy dañu gi dañu gis étudiants yi di jël sa say seede di ko lakk maam góor lan moo si yoonu maam góor ci grève étudiant ba ñuy lakk ay seede waaw waaw posé nga moo nag question boo xam ni même man ni sax loolu jaaxal na moom parce que euh, man tey jii soo xoolee sama doom am naa doom boo xam ne mu ngi université am naa doom boo xam ne déwén dem université te man j'aime les étudiants parce que dëgg dëgg neex yàlla tey réew su naree dox mooy étudiants yi dañuy baax te gis naa ni Sénégal tey ji président Macky Sall mi koy jiite Sénégal la jànge fi la amee diplôme am yépp ba tey jii mën a ñëw jiite réew mi donc man étudiants yi képp koo xam ne da nga leen di gàllankoor wala da leen di tardeel wala seeni yëf taxawoo ci man du ma ànd ak yow ci loolu te yaakaar naa ni tey jii euh, seeni bourse dañ leen ko war a fay loolu mooy yoon waruñu toog sax naan ay étudiants dañu am problème bu bourse benn bi ci topp mooy man dama xamul tamit affaire u euh, grève lan la joteeg ay CD yu ñu lakk man je suis un sénégalais musicien am naa droit def sama album génne ko jaay ko ku ma neex mais li ci nekk te nit ñi xamuñu ko mooy man nit ñi dañuy fàtte ni damay def politique j'ai des adversaires politiques tey un gars comme Ousmane Sonko il a des étudiants à l'université tey jii man comprendre naa ne këram la ñu jógee dem wut samay CD wut ay ambulance dem wër benn CD boo xam ni woyoon naa ko président ànd ceeg président ñu ne dañ koy lakk boo xoolee juróom lañ xaw juróom benn yoo xam ni kër waa ji lañ jóge Ousmane Sonko dem pour def ko donc tey jii loolu saa me fait ni chaud ni froid parce que man étudiants yi su may rakk lañ su may xarit lañ su may jarbaat lañ mënoo nag di def politique bëgg jël Sénégal bëgg ko jaxase bëgg jël ay nit di leen jaxase ak Sénégalais yi tey étudiants yuy grève bourse bu leen fayul lan moo ci yoonu ab waykat xam nga loolu amul sens tey Sénégal bu ko dégg xam ne lii amul sens mais politique la il faut que Ousmane Sonko arrêté di infiltrer ay Sénégalais di leen jaxase ay Sénégalais loolu rek laa amoon ci li ci tontu merci beaucoup.